dal leen ak jàmm ci xibaaru tàggat yerem yi mais laata ñuy tàmbale vidéo bi ñiy gan ci seen bi dama leen wax ñu abone te activer cloche bi ndax vidéo bu fi bàyyeekoo ngeen bokk ca ña cee njëkk a jot te ngeen aimé vidéo yi di ko commenté lu ca am solo la waa xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbalee ak doomu sénégalais bii di Henri Saivet ñu bari war nañ koo xam ndaxte njàgg naa ñëw ci équipe nationale bu Sénégal moom nag euh, tàmbale na entrainement ak clubam bu bees bi muy Po FC ci fàttali rek moom Henri Saivet muy milieu de terrain sénégalais bi. toog na lu tolloog at ak genn wàllu fubalul ndaxte contrat am dafa jeexoon euh, ak clubam boobu di new Newcastle ca championnat bu Angleterre gannaaw loolu nag euh, moom signé na contrat bu tolloog ci ñaari at ak club français bii nekk ca Ligue 2 bu France contrat bu tolloog ci ñaari at moom nag tey jii ci vendredi bi yem vingt 24 juin ci lañ door entraînement ngir waajal li nga xamante ne mooy saison bi ñu jëm muy 2022 2023 Henri Saivet nag euh, jour la boo xamante ne bu man li muy def la bëgg li muy def kon nag nañ ko ñaanal ndax saison bi mu def saison bu am solo ndax mu defaat retouram ci équipe national bu Sénégal bu ñu jugee ci Henri Saivet dañuy dem ci beneen doomu Sénégal muy Samba Diallo mi nga xamante ne ak ndaw la boo xamante ne mën na li mu def footballu Sénégal am na ci moom lool yaakaar mu am 19 ans moom nag club yu bari ñi ngi koy courtiser soxla ko bu baax a baax ndax talent bi nga xamante ne gis nañ ko ci moom moom nag euh, bu ñu sukkandikoo ci foot mercato club boobu di. Euh, Olympique de Marseille soxla na ko Olympique Lyonnais soxla na ko Bayern Munich soxla na ko RB Leipzig soxla na ko ak Monaco moom nag ndaw la loo xamante ne ma ngay football ci équipe réserve bu euh, Dynamo Kiev Dynamo Kiev nag ku ne xam ne actuellement ca euh, Russie ga mu nekk guerre ba fa nekk moo tax ci problème yu métti la ñu nekk kon Samba Diallo mën naa am mu quitté club boobu di demande Dynamo Kiev dem ci club yi ko soxla muy OM wala OL wala Bayern Munich wala RB Leipzig wala AS Monaco kon Samba Diallo nañ ko ñaanal ndax doomu Sénégal la boo xamante ne footballu Sénégal am na ci moom loolu yaakaar waaw bu ñu jugee ci Samba Diallo dañuy dem ci suñu capitaine bii di Kalidou Koulibaly bu Naples moom nag euh, ki nga xamante ne mooy la Juve muy club boobu di Juventus daf ko bëgg a recruter wante la leen Kalidou Koulibaly xamal euh, bu ñu sukkandikoo ci Tito Sport mooy que buggut a dem foofu ci Juventus fa mu bëgg a dem daal waxu ko wante club boobu di FC Barcelone daal ma ngay dox ci ay mbiram ngir bëgg koo jënd moom mii di Kalidou Koulibaly 27 Batman bu Lille mom ak Newcastle nak fa daanaka transfert ba yemb na gannaaw bi nga depuis janvier euh, Newcastle def na lu tollook ñetti offre wa Lille ko koy refusé euh, transfert ba presque yemb na ndaxte Lille ak Newcastle depo nañ ci ay cadeau ba transfert ba xayma nañ ko ci lu 37 millions. Euh, draw ba sax ki nga xamante ne mooy Newcastle ma ngay waajal li nga xamante ne mooy visite médicale bu défenseur bii di di Batman kon affaire yi jeex na dinañ xaatim contrat ba bu neexee yàlla loolu nag ki nga xamle mooy Fabrizio Romano kon mbokk yi fii la ñu ndar keppalee xibaar yi di leen wax euh, ba beneen yoon ci suñu yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf.